Telkom Audiovisuel Telkom Audiovisuel ci saint la nekk wala ñu mooy école militaire yu mag yi nekk France am lu ko fa dal day def bu ci guddi day génn daal di tooyal la bu tëddee guddi rek génn tooyal la ba yàlla dogal mu jéem koo faj France mën faj mu ñëw Afrique bi mu ñëwee Afrique làmb sëriñ si xam sépp mënta faj bi mu demee ba sonn am ku ko ne sëriñu murid bi nekk yi nekk Tuubaa yi wax nañ ne lu ko nit wax bu duggee ci noppam yàlla def ko saafara te ku ko seeti kooka gi xam nga ku jaaxle moom fu ñu la ne la sa saafaraat mu ànd ay nijaayam la ñu bokkal ñëw Tuuba ran ba gis seen nijaay yi ñëw ne ko sama jarbaat bii de seen fan ne na waxal boppam wax naan mu daal takk fi dem daal ne ko man de mbàkke damay def fu ma tëddee di nelaw rek ba guddi damay gént rek tuur ndox waaye bu ma yeewoo su ma lan lay far gént gi day far loolu dëgg léegi Gracias. que su ko waxul woon woon noonu rek na nu ko waxee rek gën a yàq lu raw li doon sax ba hmm? yàlla may ko mboolem lu mayal gaal bi xam nga ne danaan wax ak suuf di wax ak ngelaw di wax ak asamaan di wax ak ay jur di wax ak lu ne màggalu Tuubaa gi màggal ko weñ yi daa bari ndax xam nga ne ak màggal li jaadu mooy weñ yi bari ndax li weñ bëgg rek la def ci màggal ndawal bu bees ak suukar waaye boo seetloo xaw ma ndax seetlu ngeen ko walla déet màggalu Tuubaa xam nga ne léegi bu bëree xam nga ne dëgg mosoo màggali bañ ne weñee yàq màggal xam nga fu bàyyi ci mbir la bàyyi ko daa màggal nga xam ne weñ yi dañoo bari ba lëjal nit gars yi ni lii daal buñ ci wutut pexe weñ mooy doon sababu lii yàq màggal kon nan dem ci sëñ Fallou nga xam ne moom wax na fee njéeréer wax lu ne mu wax ci weñ yi ba weñ yi bañ yàq màggal ñu daan def délégation dem ci sëñ Fallou ñu ne ko màggal gi di màgg màggal sëñ Bamba gi di neex na lool waaye weñ yëpp ba yàq mais ñi daal bari na bari boo xam ne kenn xamul looy def ndax lii suñ fan ne teg ba jàkk déglu ba tey de ni mu koy waxee da nga kon waaye ñi dañu da ngeen ba bu leen waxee ne ko amati te loolu day créer un désordre ak un déséquilibre écologique ndax weñ daa war a bokk ci li am ci àdduna bu weñ manqué woon am na leneen luy dundee weñ la loolu day manqué lay dundee loolu tegu ca lay dundee loolu tegu ca àdduna day mujj ma ndax àdduna lu ne yaa ngi waaye da ngay dégg ni mu déggee wax ci kun fayoo ko ni ni ngay xamee dégg yàlla yi da leen ne kon mooy ngeen bañ a fay rek ba bañ màggal si maam jël si bañ bañ am day bañ mu yàq Buddha ndax bëgg gi ko bëggal moo may mu raw ci nga danaa wax ne da ngay xool xel bu rëy bi mu am dal di ne ak jéem te loolu stratégie boobu yëpp kenn waralu ko su bàyyi woon nit ñi màggalu Tuubaa kon day dagal ñu defe bu mu ne mu daal di doon international loo xam ne weesu ko wutal bér waaye yeewu bi mu yeewu ak xam ji xam ak yéen ñi ko yàlla yee ak yéen ñi ñenn sëñ Tuubaa jàmm koo xoolal ci bopp ndax ama mooy at mi gën a am solo ci li Sëriñ Tuubaa def Tuubaa ndax ci la waxaale mi dëkku Touba nee na mbaar mi nekk mi sëñ mi di ko bind nee na kay ne mas na mbaam àll ba mbaam àll mi dikk làqatu ci ginnaaw sëñ bi jël ñaari tànk kanam yi teg ko ci mbaggi sëñ bi te yàqut ci li sëñ bi def dara nee na ba gaynde yi ñëw jàkkaarloo sëriñ bi warmal sëriñ bi tax mu daal di dellu ba woon sëñ bi ginnaaw fàddu dem sëñ bi maa ne maam àll bismillah soo ko tekki ay tànkam dem xam nañu ci nee na loolu yàlla doon ko mën sëñ nga ko kaaraange gi ngay ñaan ci dëkk bi am nga ko bu kaaraange boobu amul woon gaynde ji buy dàq mbaam àll bi yàlla na ko xëy mu dugal ci am ko déglul sëñ Tuubaa li mu fay fay wane sëñ Fàllu di fa wane jumaa ji li waree ne sëñ Fallu mooy yeggale jumaa ji waaye waxuma la yeggale jumaa ji waaye soroor bi ci gën a rëy gën ko cee sax sëñ Fallu la ko dégg moo ko war def wax fi li man band bi naa alaara fa jëggal ñu tabax ba noppi tabaxam bu kawe bii wax fi li man amaroon bii jami ñi leen digal ci tabax bi jëggal leen wala jami man alaanum ala bi naa ihaar ñi leen dimbali ci tabax gi ñoom seen boole leen ci jëggal gi tabax boobu mooy ban mu ne ëllëg tabax ba nga xam ne intalaa dina kawe bi fadlika ci loxoy fan التسمية أما الخلوية كلها وهو الذي أنشأ جسمي عن زيارته mënuma dem Makka ndax sama yaram mënut a dem Makka lakin lisaani lahu xalxal bu sa war waaye sama xol dina dem Makka ak sama làmba ñu ne de mu bind ci même at mi muy raaye la am lii bi fan li ko yaaw aw yaaw kii kaw ñu ne dina dégg ko man di roox boo ko bind gis bi de muy dem Màkka ci sama ruu nekkati boobu ruu boobu Serigne Touba yaramu seen fànn la bëggee moo tax 1927 la Serigne Touba ñëw Touba 1928 la Serigne Touba ne day dem aji Màkka ñu ne ko fànn loo yóbbu xanaa la yàlla wax nañ ko ko yóbbaale mu ne xasatu ziyaaratan li nabiyil karim bila zalin ani cheikh qadim man maa ngi dem màkk waaye nag yóbbaale wu ma kenn sëñ Tuubaa laa yóbbu bi rox rox ga sëñ Tuubaa ne woon laay añee màkk sëñ Fallu ne confirmé ne ko yóbbaale wu ma leen sëñ Tuubaa la yóbbu liy dëggal li ma lay wax sëñ Mbàkke Buso nijaay sëñ Tuubaa da ko ne woon dinañ basa ànd na màkk màkk yow buñ demee di nga réeroog ni boo may gis da koy fekk ci maqaama Ibrahima may jàng rab yi sëñ Mbacke bi sëñ Touba ñëwee Touba dafa ubbu ndax waxi sëñ dem màkk te léegi xamatul nan la ñuy demee màkk indi nañ sëñ bi mu gàtt ndax koo xam ne gëm ne lu wax am na su waxee benn wax mu weddi ko du la na nga ko gëme woon kon mënta dugg mukk waxi ndax kon aqidaam day yàq mu jaaxal nag ak yàq ba sëñ Fallou di tàmbali yoon màtte boo maam Seex Anta ak sëñ tàkko lañ tàkko doomam ak sëñ Mbàkke Buso ak ñeneen ñi leen ne ko damaa bëgg nga waaj ñu siyaare bi Rasulullah damaa bëgg nga xam ne nag demoo demalul suñu bopp sëñ Tuubaa la ñuy defal waaye sëñ Mbàkke Bousso si xelam bi demagul ci loolu waaj na rek ànd ci waaye xel bi demul ci ndax ngërëmam yow yaay xam-xamam ma bàyyi seen tànk mooy mooy àndal kon bu ñu àndee ñun ajali ko ajal na ko waaye ba tey seen nàkk bu sa xel mi demagul ci loolu ñu ànd dem doon ñetti énergie yooyu ajal sëñ Tuubaa na ko bëggee woon ñu réeroo sëñ ba nit si ci maqaam Ibrahima fekk toog di jang ray yegg na ci beet wi ma len di wax ak li ci fatli ke ya wa ha bu ya maliki kaw la nek ko man bi roh sa wa señ bat ci yi ngay xamee ne sëñ Fallou kon mooy sëñ Touba sëñ Touba def ko boppam moom sëñ Touba tàmbale ca tàmbale ca sëñ Touba nga xam ne lu mu la wax ci sëñ Touba moo ne woon sëñ Touba gis naa jant mu fenk ci ba tey xam sëñ Fallou sëñ Touba sëñ wala déggoo ca lool hmm? loolu nga ciy dégg ndax sëñ daam moom ma lay wax dundug sëñ Tuubaa jëmm la joo xam ne lan xam ci sëñ Fallou moom bu ñëw nga jàngal ma tànn nee na sëñ Fall def ko aar mu bàyyi ma fa ma toog daal di dugg ca biir kër gi naa sëñ Bamba nee na ma jàngal Fallou taalu bi bi nee na nekk ca loola nekk ca loola nekk ca loola ba daanaka waxtu ba dellusiwaat mu soog a dikkaat fekk sëñ Fallou mu toog fa mu toogal ko mu dugg na ko wax Fallou looy def fii mu ko fii de yaa ma ko bàyyi wat Fallou mu ne ko wax demal kon moo taxul daal nee na bi ko sëñ Fallou bi sëñ Fallou jógee woon ko ginnaaw di dem Cheikh Oumar daa ko def ak sëñ Bamba sëñ Bamba moo yeewu nee na tasaare na barke bi ci ak njabootam. ak i taalibeem waaye jëlaat na bàcc ba delloo la ne te sëñ sëñ Fallu doomi sëñ Fallu waaye jàpp wala mooy tasaare na barke bi ci ak njabootam la ci dogal waaye delloo na bàcc ba bàcc bu gën sëñ Saal yi nga xam ne moom lañ daan wax Saal Baye Fall moom tamit jóge na ñaari Saal yi yëpp sëñ Saal nangam piis nii lañ koy takkee ndax ñoom ñoo daan bokk ay yére bu ñu leen kenn ku nekk ñu mu mu mu mu wékkee moom ngay sol moo tax dañ naan yéen day xam ne kon comme moom solu jaxle nee na noonu nga daan xam ne seen i yéen gis nga ab taaw moom la ko tuddee ko jox suñ mën bu sa jël suñ Amadou Moussa Fall moo moo ko yàq mais suñ Amadou Moussa Fall moo ko yàq ba bëgg suñ Fall def li mu bëgg a def mu dénkaat ko suñ Fall te dafa romb dëkk yépp sama borom defal xéwal bu bari waxtaan wi wax na suñu taal bi taal moo ko doon waxtaan lépp rek ak sang yi fi ñëwoon ñu ngi leen di ziar raaf di bàq lool Sëñ Fall ñoom Sëñ Fall Mbacke njabootam yàgg lool